jox alshaaciru alxaqiqi yulgi shi'ra almutashaacir sëñ Lamine Diop bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xam naa fi ñu dugal doy na waar ndax man dama baaxoo tënk yàlla dogal ñiy tinki njëkk ma waaw kon ñu waxtaan ci diggante sëñ Fallou ak soxna May ci béy yu gàtt may leen ma nopp yi ma noppal leen ci àdduna ngeen xam nag ni yàlla li muy def kenn du man dindi ca lu tol ni tarfata ay nin ñii ji koy sang jiñ yor yàlla moo leen ko jagleel kenn nag ku ne ca yi ñaari tànneef yi ñaari tànneef yi ñuy tànnee mbusóobe gile ak mbakke yàlla réyal ñii ñaar di seen daraja sëñ Fallu Mbàkke boroom Tuubaa bëggoog ndindi gi ak soxna May Muunatul Kubra borom cere ja cere ji nag faw dama koy leeral ak kaamil yi nga xamante ni ñoo ci am rek ndax lu gàtt lay doon euh, Cheikh Sidi Baba sëñ Tuubaa dafa dem am doomam jigéen joo xam ne dafa togg cere dafa def bindub kaamil jox ko ko sëriñ Tuubaa nag ñu teg ci ay fan Cheikh Sidi Baba yónnewaat njéeréem bañ dikkee nag mu jox soxna may ab gàtt jox ko pepp mu daal di togg cere ju neex xam naa nag mbokki jigéen ñii nga xam ne ku ci man ku ci jàng bàgg yaasin képp da naan togg door dema ca waañ wa dangay ngay mel ni siidub tarmus xam nga tarmus bi siidu mu day toog rek jàpp nañ ne boo jàngee war a def dara Sëriñ Tuubaa la loola def Sidi Seex Sidi Baaba loola ko def ba naaree dellee ñoo ko nettali Seex Sidi naa sëñ bi saa doom ji daa wattu lool di jéem a wut ndam ci sëñ Tuubaa te loola du yoon ñu teg ci ab diir la sëñ boobee sëriñ ba demoon yónnee fi njëriñam di faj la aajo sëñ ba ne leen toog leen ba ngoon daal di yónnee ay wagaani cereem yoo xam ni càquñ lëtuñ njafaan ya doy mu ne góon am na saa wolof bi fi nekk nag léeg-léeg muy def xutba boo xam ne di wolofal waaye càq lët ba noppi naa ko laaj yoo xam ne càquñ lëtuñ njafaan ya doy mu ne góon ba na ba naari doy ba gàtt sëñ bi jottali leen kaamil bu sell ñu yéem bi mi naa ki mu doon sëriñ bi naa leen ki mooñ reer bii de mooy ki yaxal kaamil bi suqi ko gis ngeen mbër xanaa yéemu ngeen naar yëpp ànd di wax xayartu yaa hajaban moo man ci waañ wi manaat ci diine kenn du ko seen jigéen ju man cere man ceeb xam addis man a woy man alxuraan bindi kaamil soxna may du keneen kon soxna may lii def ci kaamil ba sëñ Fall yi naa ci indi ñetti bay ci kaamilam sëriñ Fall lépp lu muy def da ci dàkk bëggu sëriñ Tuubaa ba tax na ñaar fukki kaamil juróom-ñett la bind xët wu ci nekkit ñaar fukki ñaar fukki bayte juróom-ñett la ba ma ko waxee alaji baara ba ma ko jàngee ba ñëw dañ ma yow sëñ bi soof nga lool ñaar fukki kaamil juróom-ñett xam naa ko waaye xawma woon ne xët mu ne ñaar fukki bayit juróom-ñett la Tuubaa la ci topp ñaar fukki kaamil bind muy uró fi Tuubaa ak a mat li gën moo di xët wu nekk it ñaar fukki bind ak juróom-ñett la ku wedd lii ma wax nga dem ba wàññi ko ba xam da nga fa gis lu jiite ma nga dem ba wàññi ko ba xam da nga fa gis lu wuuteeg li ma wax doonu ma koy jabatu koy farati wax kon sëñ Fallou sëñ gi noonu lañ def ci alxuraan soxna aw busa soxna aw busa soxna aw busa ba léegi soxna aminatu busa di seen jëf yu baax yi jëf ba ñuy judd ci dañoo newoon fa sëriñ Touba di bokk ñu jaay seen bokk googee sëriñ Touba li lay tona ja sëñ Fallou ni mu def rakkam jii soxna may mënutu tudde na ko ñetti doomam lii de lenn lenn la ca ñetti doom la ko tudde moom soxna may jox na yi sëñ Fallu war ma ju rëy ju toll ne jëm jox sëriñ Touba ma ñëw junj ca sëñ Fallu ko ni kaamil bee sa baay dindi woon tikki xolam nanga nga bindaat benn dolli ko ca te soxna may booba day mag bind xam nga ci mag day metti fekkoon na it wéeroon na alluwa ja mu foofu ko it bind kaamil doom ja nee nañu sax sëñ moora maas ñaar fukki xisbin ya mujj na ca sëñ Mor May moo maas ñaar fi tàmbali wala tujaar lu ba suuf sëñ Fallu fab kaamilam boobee da teg ko fa sëñ Touba ni béeg booba sëñ Touba mbéga ma ca sëñ Fallu soxna May liñ bokk dañu bokk xalaat yàlla dogal na sëriñ Abo mi ñu tuddee sëñ Mbàkke Buso moo moo wóotu sëñ Fallu sëriñ Abo mi ñu tuddee sëñ Mbàkke Buso moo fi nekk soxna May kon ñoom ñaar dañu bokkoon ne xalaat sëñ Fallu tey sëñ Abo jotaay. ba mooy ka ca toog sëriñ aboo jël photo ba soxna may du ju ca sëñ Mbàkke Fóore ji raw fii moo di seen turandoo yàlla na yàlla guddal seen fan yu wér lalu ca sëriñ aboo noo ngi lay jaalaat sa rakk sëriñ xalil de yàlla na buur berndeel ca àjjana ja sëriñ aboo may yawet sëriñ xalil sa xarit na yàlla yokkate ay leeram ca yërmande ja sëñ Fallu ak soxna may seen may xëjul ci këyit seen may yi yàlla nañ ci may doom sët yi seen jikko ja te yàlla yàlla tawal leen niiru yiw fa ñu ne te yokk seen leer li fee ñuy julli ajjuma ja allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli macha naam eh, wax naa leen alchaaru lchaacir alxaqiqi yulgi chaar almutachaacir balaa ñoo jox sëñ xaadim mi nga xam ne mooy wax ci turu sëti sëñ fàllu yi dañ leen di fàttali rek ay liggéey yoo xam ne sëti sëñ fàllu yooyu ñu ngi koy taxawu liggéey ba ca jiitu mooy daara joo xam ne ñi ngi fi fi nekk nii ñu ngi koy tabax di ko tabax ca ndindi tàmbali nañ ko sëñ aboo mii yàlla na fi yàgg loolu te weer moo ko tàmbali moo tax moo teg xeer wa ñu ñaan mu te mu ubbil nu ko incha allah balaa yàgg euh, daara jooju nag surtout sëñ fàll yi ñu ngi ci wooñ ñëpp ak ku ci mën a jàpp mu jàpp ci am na ay lu koy siiwal incha allah ci bunt bi fii ci fi ñu jàkkaaroo ci bâche bi ku ci bëgg a am lu la leer di nga ko gis incha allah am na beneen liggéey boo xam ne sëriñ Mamor moom Cheikh Mahamadul Fadil ñu ngi ñaan suñu boroom yokk ay leer moo ko taxaw woon téere bu tudd chawahidu baax al afadil fi manaqibi Cheikh Mouhamadin al Fadil docteur sëriñ Cheikh na Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ca taxawaat maas ko leeral lenn la bañ waru bañ koy moolaat di ko mool fi mu te fi mu toll nii ca Maghrib loolu tamit diggoon nañ ko mbooloo mi ci màggal gi waaye ni jamono di doxee wala boog ni jamono tëddee fi nekk nii yenn saa yi yi ñooy doxe aw doxeen woo xam ne la nga bëggoon du ko duñ sottal am beneen téere bu tudd xadaaiqul fadail fi chérati cheikh Mouhamadul Fadil boo xam ne lajnatu thaqafiya bi topp ci daairatu ahwaali cheikh Mouhamadul Fadil moo ko bind booba moom noppi na lim ba ca ëpp insha allah moo ngi ci bato fi mu nekk nii di ñëw senegal am na beneen lim boo xam ne ay benn benn exemplaire la yoo xam ne suba insha allah dana agsi fii ci Touba ñu dégtal ko mbooloo mi jox ko kilifa yi ñu gis ko xool ko ba xam ne liggéey bii nga xam ne moom lañ dëggee loo njaboot gi sotti na ba ni ma ko waxee lu ëpp lu ëpp lu ëpp junni ci ay exemplaires lañ ci mool loolu teg ko ci avion du yomb moo waral ñu teg ko ci ab bateau mu war a ñëw ndax bateau itam doxeen bi gaawul waaye nag yenn ci ay exemplaires incha allah dana agsi suba bu yàlla des na ko dëgtal mbooloo mi des na ko teg fee ca exposition bi lenn bi ngir ku ko ku ci bëgg a ku ko bëgg a gis baa nga bëgg see jot incha allahu taala kon ngir bañ a guddal dañuy jox Sëñ Xaadim mi nga xam ne mooy wax ci turu Cheikh euh, mooy wax ci turu sëti Cheikh Mouhamadul Fadil balaa loolu dañuy sant bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoo ñu koy jàllaleel ci euh, siwalukaay yi nga xam ne dañ koy def direct ci Touba TV Ndindi ak yu Rafah TV Bichri TV Alxadimiya Ndindi 24 Timis ak ci point net ak ITV nga xam ne dañ koy def élément journal am na ay rajo yoo koy def direct itam Lamp Fall ak ak i rajo kon ma indana lil dayfi xulli mashqatin lakinana najli almahabata jadula aw indana bun aw indana bunnu saidati hahuna aw tamra jiddatin kay nukarrima mexfala id kayfa rabu lbayti yusbiqu dayfahu